Sénégal bokk ci dëkk yu ñu gën a naw fii ci Afrique wërngel këpp ndax ni muy bindoo waaye tamit teranga gi fi daal am waaye réalité gi fi daal am mooy Barça wala Barsàq gu lëmbe fu ne nii réew mi le ba ñëpp ñi tey daal di wax phénomène gile muy actualité bi nga xamante ne ñu ngi cay yeeye ka yàbbi ba tey ji ñoragul ca loola ñu ci gën a bari àddu nañ ca waaye nguur gile ba tey ji amagul solution adéquate ngir rekk daal mu mën a indi saafara ci ni ni lu ñu xamle mooy ci actualité réew mi la fu mu ne nii liñ ciy daal di dox dégg nañ ca ci li toll ci ñetti téeméeri doomu aadama yu jëloon gaalu looco yi jëmale ko Espagne jóge fii ci mim réew dañoo daal di réer te kenn xamul fan lañ daal di nekk. 300 300 300 doomu Sénégal dañoo disparaître non mais ni du dara. ñenn ñi weddi nañ ko lu ci mel ni nguur gi ak ki nga xamante ne moom mooy jëwriñ gu ñu dénk wàllu bitim réew di Aïssata Tall Sall moom nee na li ni mel dara amu ca waaye ay études yu nga xamante ne def nañ ko waaye tamit ñu gis ne ñu ci gën a bari fu ne nii wax nañ ca lu ci mel ni gouvernement Espagne ñoom àddu nañ ci ñi mel muy ci lu toll ci 300 migrants yi nga xamante ne réer nañ te ba tey jii ay avion ñu ngi def tour côte yëpp te xamuñu fan lañ dem ndax dañoo lab dañoo faatu. ndax dañoo teerte feneen xamuñu ka weneen mbir bi nga xamante ne lëmbee na réew mi muy mbir mu xew ci Saint-Louis ba tey ji ci immigration clandestine mbëkk mi lee Barça wala gannaaw ab gaalu looco itamit bu yaboon ay nit yu ne gàññ yu jëmoon Espagne ca Saint-Louis ca bël ba fala gaal gi daal di suux ci ñu gën a bari faatu nañ ca ci lu toll ci juróom benn doomu aadama rek lañu daal di gis seeni néew waaye ñeent dong lañ ci mën a sauver ñeneen ñëpp kenn xamul fu ñu daal di nekk lan ma waral mbëkk milee sama gaay bëgg am rek billaahi mi dina de bëgg am rek billaahi xoolal rek tey lañ am si géej sept jours billaahi li may liggéey fii mën naa toog góorgóorlu mais boo xoolee la moo tax ñun mënuñu toog fii ni góorgóorlu dëkk bi dafa metti mën nga xëy soo ba da nga am ay rak ay frère du genre ñoon dañuy yaakaar si yow di xëy benn jour dem liggéey waaj saraka dina la ñaan benn affaire satisfaire ko mooy loolu noonu parfois sax mën la manqué si par day jàpp ni sax kii sama mag la war na ma dimbali te dimbali ma donc amul ma njëriñ boo gisee yenn affaire yu bëri am si famille loolu la ñii dañuy am moo tax ñu leen jox cër ñenn ñi tamit parfois ñàkk bi ñu ñàkk si la moo waral sax après ñuy fépp quoi parce que li nga xamante ñoom ñu ngi koy def si kër parce que ñàkk liggéey moo tax wala ñuy genre mais fekkoon am ko si ñoom mooy li waral gars yi di jël gaal yëpp lenn kase dëkk bi moom moo métti moom moo doxul daal yàgg na lool am na ñoo xamante ne daanaka yàgg nañ di def ni ni gannaaw ay études yi nga xamante ne ay expert def dañ ko fii ci Afrique gannaaw Nigéria Sénégal moo ca topp muy dëkk bi nga xamante ne bëri na ay clandestin lool ci mim réew seeni destination Espagne Italie France ca la gën a bëri waaye ñu daal di xam ne ñu gën a bëri itamit ci sous région bi lu ci mel ni Mali Guinée wala sax Mauritanie ñu gën a bëri itamit bu fekkee dañuy jël gaalu looco yi ngir dem Espagne Sénégal fii dañuy jëlee départ ci yenn côte sénégalais yi lu ci mel ni Saint-Louis Joal Mbour Dakar Kafountine ak yeneen i gox maanaam ay côte yoo xamante ne mën nañ fee jóge jubale ca Espagne yoon bi gudd na escale yi bari nañ am na ñuy jaay Maroc jaar Espagne génnee noona waaye mbir mi wóor moom amu ca lu ñu xam ca loola muy jeunes yu gën a bari lu leen gën a poussé ci dem ci Barça wala Barsaq mooy ñàkkub liggéey gi nga xamante ne ñu ngi ko nekkee fii ci mim réew naam sax nguur gi mu ngi def kémtalaay kattanam ngir saafara loola waaye daanaka jeunes yu gën a bari gisuñ ci seen bopp ndax nee nañ daa demee boor waaye ca li ni mel xam nañ ni itamit ñu nekkee ci réew mi doxul ca ñoom di yeewu dërëm nekkul sa poche mënoo sax jënd suukar waxuma la ak warga nekk ca loola nekk ci dëkk bile di jàkkaarloog say waajur te mënoo leen defal dara mu doon lu metti lool yenn jeunes yoo xamante ne taaba taaba ut lu ñu am ci lu toll ci 300000 400000 700000 ba 1 million ça dépend ci borom gaal gi li muy daal di laaj bëgg a tekki ca loola am na ci ay xale ay mag ay paa ay mère ay gone ay jigéen ak i góor mën na sax am ñoo xamante ne dañoo daal di wann lor muy jigéen gu wérul la seen ravitaillement bokk na ci essence ceeb diwlin yeneen ya tey dem suukar ak meew ndax dana doy ca ñoom mhm, déedéet mën na ne waaye ñu ci gën a bari seeni ration du leen daal di doy mën na leen jàpp benn weer ñaari weer mën nañ àgg ak jàmm mën nañ bana àgg ak jàmm ndax wóor naab wóorul ña ca dem xam nañ la ca ne ndax du ñu am lu leen jaaxal ci yoon bi ahankay ndax amul yeneen li fay daal di xew ci biir gaal ga ahankay waaye ku gis ni ni mel boo ñëwee ab manqué war na la. bu ko joxulee nag léegi day merci looloon quoi jàpp ne sama ji bëgguma tekk wala bëgguma dara mais une ñu jox la xaalis nga dem ba si biir bu yàlla defee nga yegg alhamdulilah boo yeggee sax di nga nit koo xam fii nga ne ko sa wuy ma li affaire dof la bul si dugg quoi malgré que nag yàlla defal yow nga ñëwaat man daal damay sant yàlla mais su ma xamoon ni loolu laay daj si gaal yi wala affaire yooyu laay dund non je vais pas partir quoi 300000 yi moo joxe am na feneen fu xaj quoi. ñu ci gën a bari bu ñu daal di demee dañ leen di daal di refoulé ndaxte ci fan yii ñu génn xam nañ ci lu toll ci 1000 sénégalais daal di nañ àgg Espagne waaye 702 ci ñoom dañ leen a daal di ñu daal di ñëwaat waaye ca ñoom amoon na convoyeurs yoo xamante ne dañ leen a déferke ca parquet ga 2000 ci ñoom seeni projet dafa daal di avorté maanaam dañ leen a daal di tas mystère gu nekk ci nombre de disparus yoo xamante ne ba tey jii waxuñ ca waaye ñuy daal di xam ne gaal gu kite woon Kafountine ñoom ñii xamuñu fu ñu nekk te lonket gaa ngay woy mbir mi kat wóor amatu ca ñu demoon ca loola jóge Saint-Louis jaar bël ba seen gaal këpp ñu di daal di faatu ñi cey muccal ñu daal di leen a muccal mbir mi itamit leeragu waaye ndax loolu day tax sénégalais yi bàyyi li nga xamante ne moom mooy yoonu clandestine bi jaar ci géej gi ci gaalu looco yi te amul benn kaaraange waaye loolu du leen tere dem ndaxte barsa wala barsaq du lu dul dem rekk ba dee ndax jara na leen ko dund gi ñuy dund fii ci senegal tax na ñoom nee nañ amul dara lu leen jaral toog fii ci Sénégal ñuy gis seeni waajur te mënuñu leen dara te kenn day dem Europe léegi ñëw léegi tabax lu am solo ba noppi tamit yor nu le gàññ ndaxte koppar gi du benn waaye ñu ci mucc ba dem Espagne yeneeni réew yi nga xamante ne ñu ngi fii ci àdduna bi ba noppi tamit doon ay migrants sénégalais yuy dund ca bitim réew ñenn ñi seen dund day metti lool ba ñu woo seen consulat ngir ñu bëgg ñibbi maanaam répatrier waaye lu ci gën a bari bu ñu sukkandiku Aïssata Tall Sall moom lu ci ëpp daal dina àddune sénégalais yi nga xamante ne ñu ngi dund bitim réew te ñu bëgg tamit ñu dimbali leen wala état du Sénégal indi as tuuti teg ko seen loxo wala sax naam ñu indiwaat leen fii ci Sénégal bu fekkee ne nangul lañ leen loola ba avion bi taxaw duñu gis kenn. ne vont pas venir c'est exactement ce qu'ils ont fait ils se inscrits chacun a hurlé. on veut rentrer, on veut rentrer, on veut rentrer. Quand l'avion s'est posé, qui monte à bord Personne n'a voulu monter à bord. Il n'était que On a fait des communiqués pour dire ça. ca loola muy situation gu gën a bari fu ne nii ñu ngi koy dund nii ba tey saafara amuga baax saa mbaa baax sàkk